waaw kete moom peut-être ça va concerner euh, taalibe bàyyi ci panel bi ak ñi nekk ci biir réew mi ndaxte dafa am ay taalibe yu ko woote askanee ko sen muxaddam seen muxaddam du ko ñu di di góor yàlla bi wax dëgg ku ku manu ku efase ku oyof ku am yar ki nga xam ne wax dëgg yàlla konka moom ci woon waxul ak làmminam dama ne kene warul taxaw di ko tontu wax dëgg yàlla euh, donte nag ay taalibe ñoom taxaw nañ ne seen sëriñ moom léegi kenn ko wooyee te ñu ko woowee waaye léegi ñu koy woowee Issa Ruuxulaay ndax moom mooy yoon ci Yàlla Issa dama ne loolu laaj na ñu taxaw waxtaan ci waaw waxtaan ci ndaxte euh, alxuraan moom daf ñu woo ci xam-xam tarixatam bi ñu bokk tam muy tarixa tijaan yi daf ñu woo tamit ci xam-xam tarixa bi tamit lépp lu ci am lu ciy xew war nañ ko delloo ci ay base bu leer waxtaan si laayante ci biir ndaxte wax dëgg yàlla euh, dañoo am kilifa am dañoo am kilifa Euh, kilifa nag si tarixa boo gis ki nga xam ne mooy bopp tarixa bi mooy kilifa gi et lépp lu fa xewit dañ koy delloo ci moom déglu ko lan la ci wax moom ci boobu donc euh, balaa may tàmbali dama gis fam yu bëri dañ ma bind am na dama gis ay message yu bëri yoo xam ne si Facebook laa gisee boobu temps yi sama téléphone laa doon sama machine laa xoolee donc gis nit ñu bëri waaw yent yàlla insa dikkaat na euh, du neen dafa ñëw ci pak pak bi la ko wootee nangam ak nangam may bëgg leeral d'abord benn affaire Euh, Pâques c'est une fête païenne ñu ngi magal màggal ni comme mbiru yalla la du mbiru c'est une fête païenne la Pâque juive moi dit tout Pâques pas sax te Pâque boobu elle vient du mot Pessa n'est-ce pas la Pessa juive moi marqué génnu le peuple d'Israël ba ñuy Égypte war dem seen dëkk bañ na ko sax Pessa tu tu hébreu sax ça signifie passage n'est-ce pas donc euh, avant Fofu, la la la la la Pâque chrétienne jël référence mom ci euh, résurrection wu yoon ci avec la semaine euh, parce que la semaine semaine bi sax semaine des rameaux ba Jésus egsee ci biir Jérusalem pour fa toogee ba mercredi jeudi bi avec le repas des rameaux vendredi bi avec sa crucifixion dimanche bi la passion quoi avec dimanche bi résurrection il faut d'abord abord ni kon déjà ñun de ñi bokkuñ ci gis-gis ak chrétiens yi ce pas bokkuñ ci gis-gis donc il faut kon d'abord euh, ñu léral lolu euh ñaarel ba. Euh, yonent yàlla Iisaa alayhi salaam dikkaatam si jamono euh, mais lii lu see sax daf ci wax dafa am ñetti mbir yoo xam ne ñett yi moom mun ñu koo mun ñu koo génn bu ñu wax si yonent yàlla Iisaa de trois choses luñ soit on parle de Iisaa ibn Mariam bi nga xam ne signe la si signe aaxiru zaman yu war a dellu si waat si jamono n'est-ce pas yu war a ñëwaat ci kaw suuf la descente de Iisaa alayhi salaam n'est-ce pas lii moom euh, dafa am ay xaddis yu bëri yoo xam ne ñoo ko ñoo ko leeral Eh, mom dafa nara a jamono ak ñu wax al almahdi ndax almahdi sax nako jité eh, suba fajar eh, fële ca màkk makka war nek n'est-ce pas dina bokk jamono ak masihu dajal ndax mom mo wara ray masihu dajal n'est-ce pas donc dina dina bokk jamono jamono mom wax deug yalla jamono bobu lu leer li nga xamé ne sa sam jàngale na ko te sam mooy kilifa diine gi waxam nul dañ gis hadis yonent bi saa sam wala wernul rek c'est parce que amo xam-xam sa xam-xam wernul n'est-ce pas bobu mu nul dañ muy benn Euh, ñaareel bi mooy Insa ibn Mariam en tant que euh, mbóot maanaam ku dondu euh, mbóotu yoon ci yàlla Insa alayhi salaam n'est-ce pas mbóotu ci yàlla Insa nag dondu ko mën na nekk am na ay wàllu yàlla yu ko mën a dondu wàllu yàlla bu nekk lu yéen sa waxoon naan al al awliya wa al al ulama warasatul anbiya n'est-ce pas maanaam wallu yàlla yi ñoom ñoo dondu yonent yi dondu googu dafay wane ni chaque wàll yi marche sur les traces d'un prophète chaque wàll il marche sur les traces d'un prophète, n'est-ce pas Donc, il y a des prophètes ils sont yusufiques, ils ont des effusions yusufiques en matière de tasawuf. Li wax tasawuf la nag li muy wax ni yow tasawuf wax n'est-ce pas effusions yusufiques yooyu dafay ànd dafay nekk ci tànk yonent yàlla Yusuf alayhi salaam lay dox di jot ay waaridaat yonent yàlla Yusuf di jot ay maratibam di jot ay mayam n'est-ce pas yonent yi ñom c'est des c'est des wa Moussa lañu n'est-ce pas donc ni euh, ils sont des yu yun maanaam dañoo dañoo dox ci trace instant donc loolu lu am la mën na nekk n'est-ce pas waaye nag ci quelqu'un bi xam moom c'est un waliyu mohammédien euh, loolu wàññeeku la dellu ginnaaw la maanaam bokk na ci dellu ginnaaw bu dee yow tu es un mohammédien ngay da ngay jot ay flux da yoon ci yàlla insa wala flux yoon ci yàlla Moussa ndax du sa wax na ci hadis ne law kaana Moussa xayan wala boobu maanaam Moussa alayhi salaam bu nekkoon jamono bii di dund wala insa ibn Mariam wala Daawuda wala ku doon dara du war ci moom lu may mu jéem ñëw bokk sama umma bi donc wax dëgg yàlla la wilaya dafa am benn wilaya général bi ñuy wax la wilayatul am maanaam wilayatul am mooy dox diggante yoon ci yàlla aadama euh, n'est-ce pas ba ci yoon ci yàlla insa wilayatul am boobu ñiy dox ci wilayatul muhammadiyal maalum dañ koo xeeb n'est-ce dañ koo xeeb sincèrement effusion dañ koo xeeb fa mel ni comme nga taxaw ma taxaw ne la kii professionnel la buy titulaire Real de Madrid ak ki xamé professionnel le titulaire ils sont professionnels titulaires mais ils ay wàll lañu waye fu évoluer wax du en termes de notoriété en termes de flux en termes de salaire en termes de euh, image si terme yépp wax donc un wàll mohammedien du un bi ay effusion il le tient de Isa de Moussa wala de Daoud wala ku don charia charia yonent yàlla Muhammad yi daf ko daf ko folli seen ay may tamit mayu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ko gën a xóot n'est-ce pas donc instant boobu ci maqaama dono maanaam maqaama wiraasatu mën na nekk n'est-ce pas mën na nekk am na ay yu yàlla yoo xam ne dañuy dañuy donnu yonent yi n'est-ce pas loolu mën na nekk léegi nag de la bi mooy deuxième martaba bi mooy dono maanaam yor wiraasatu sirriya maanaam yor sirru kenn n'est-ce pas euh, ñetteel gi nag moom mooy Euh, ak tajalli maanaam ne man maay maa nekkoon kii maa ñëwaat nekkaat nangam lii moom beneen débat bi nga xam ne euh, débat bu man bañ cee dugg n'est-ce pas waaye nag ñu comprendre ñun al muxtaar ñi nga xam ne ñoom ñooy dox ci xaqatul muhammadiya xam nañ feeñu waaye xaqatul muhammadiya min aadama ilaa yoon ci àlla muhammad sallallahu alayhi wasallam n'est-ce pas euh, wax dëgg yàlla loolu xam nañ ko xam nañ ni waarit bi xam nañu feeñuwaay yooyu xam nañ ni lenn kenn kese la te lenn la nest pas donc bu ñu fàtte kon ni euh, ñett yi dañoo nekk ñetti mbir yoo xam ne yu ñu war a bàyyi xel la ci euh, lan mooy woote maqaama benn yonent léegi nag su loolu weesoo comme que dañoo ne dañoo nekk ci faydu faydu tijaaniya il faut ñu comprendre ne euh, dafa am kilifa kilifa gi ci biir faydu cheikh tijaani la xaddasallahu sirrahu suñu buntu cheikh tijaani mooy Mawlana Cheikh Ibrahim moom dafa bind ci biir euh, ci biir mu sax ci instant bind ci ndax jamonoom am na benn waaju nekkoon Nigéria bi xam ne dafa woote di moom mooy moom mooy Isa ibn Maryam n'est-ce pas ba mu ko wootee it Mawlana Cheikh Ibrahim bind na ko leeral ko ne ko li ngay wootee ab wàññeeku la ci yow man maa ngi lay woo la ñaax nga weesu foofu ndaxte man mii man mii Cheikh Ibrahim tey jii nii nii nii bu doon Moussa alayhi salaam wala instant ci boobu dafa ma dikkal sax dinaa ko wan doylu gu mat sëkk par rapport ak moom ndax man yoon ci Yàlla Muhammad laa ko séqal moom laa moom moom laa moom laa jublu moom laa yaakaar moom mooy sama lekk mooy sama naan mooy sama lu ne ñun yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam la ñu am donc nga gisi kon euh, xew-xew bi la ko dafa mel ni am na si biir fayda ba pare donc Mahdi am na ko woote woon balaa euh, jamono bii di ñëw n'est-ce pas donc euh, insight am na ku ko woote woon bàyyi tontu na lu mu tontu tamit lettre bi soo bëggee après naa ko publier sans page incha allah donc kon euh, ñun jàpp nañ ni jàpp nañ ni kon ñun loolu dafa nekk li nga xam ne du du matif donc mën nag gëw ma ni euh, sëriñ bi moo ko woote n'est-ce pas dama gëm ni taalibe yi ñoo ko nekk di ko wooteel rek euh, ma leen di ñaax nag ñu dellu ginnaaw ci loolu ndax loolu du matif te rafetul n'est-ce woote dellu ginnaaw yàgg na fi ibn arabi al xaatibi wote won na fi mom moy xatmiyatu maqama khatmiya bu Seydina Cheikh wote won nako waye ci geuleum la wote mu ko wote dem ba ci bir xamna ni du maqama xatmiyatu bi nekul moy borom après bind na wax na ni mom du maqama khatmiya waye bind na fek bala bobu dafa bindon dafa tontu won la ci nga xam Hakim Tirmizi moko bindon ci khatmiya Hakim dafa bind ay ay ay question lu mat ci 155 cinquante cinq question ne question yi khatmul awliya kesse moko mën tontu n'est-ce pas waxul ni moo koy tontu waye moko mëna tontu la wax n'est-ce pas euh, Ibn Arabi bind al jawaabul mustaqim fi ma saala anhu at tirmisi al hakim téere bi da nga def ko sax riime pour andi im bi n'est-ce pas donc euh, mu wax lu leer dafa wax ne euh, tontu yu leer yu jubi ci li laaj yi hakim tirmisi laajte woon n'est-ce pas donc ñu bàyyi xel bu baax a baax ci loolu waaye Ibn Arabi ci fin dundam Euh, nee na moom wax dëgg yàlla du maqaama xatmi bi yoru ko wax na sax ne na gis na maqaama bi euh, fële ca Fass effectivement sëñ As As Mouhamad Tijani As maa ngi lay ziar bu baax a baax kii mu ngi def liggéey bu am solo si jaayul maa ne maa ngi leen koy recommandé ñëpp déglu leen ko waaw ku am solo la macha allah borom xam-xam la donc moom dem na ne ba gis ruuxu xatmu fële ca Fass li muy wax ni Ibn Arabi ak Cheikh yàlla sa diggante yaa presque cinq n'est-ce pas dana gis na tase naa ko ruuxam wax naa ak moom moo bind una xawul maghrib euh, ibn arabi moom wax dëgg yàlla euh, suñ su ko xalaatee ñu bëri suñ ko waxee futaat la ñuy xalaatee futaatal makkiya waaye li mu bind ëpp na loolu waaw kooku moom xut bu loon bi nga xam ne Sidi Ahmad Tijaan daaw ko woowee lu may euh, cheikhul akbar n'est-ce pas cheikhul akbar maanaam le grand cheikh c'est pas le seul Cheikh Omar Fouti n'est-ce pas Cheikh Omar Fouti ci bu sax mom bin na ni moy borom fay tijaan fay tijaan bu mak bi nga xam ne Cheikhu Tijaan parce que cheikh Tijaan mo ci fay tijaan n'est-ce pas mom woote woon nako xalaato ni mom la waaye dem na ba ci fin ba mu ne mom kat ah wax deug yalla fay dafa melni ni du man ndax man mi kat sama mbolo bu mu xoolee mbolo motax bind na ci cheikh bobu di wara a bu wax sa bu ci fin wu rima sax nga ya nan wa rubba zalika cheikh aalamu minna bi sharai wa xaqaayi wa yatalabbu wa yatalabbu alayna an naduramal xaq ay suma zara ba sara nu mu jexé teewatuma message mais mu ngi leral ni war na si ñun ñu topp euh, ki nga xam ne moo ñu gën a mat ci charia ci xaqiqa jamono bu feeñee lii waxu euh, Umar Fouti la Cheikh Umar Fouti ci maax avant moom Cheikh Mouhamadoul Hafiz euh, Ashingiti kii muxaddamu Sidi Ahmad Tijani la moo ko moo ko moo ko tarbiya moo ko jox lijaasa mu ñëw fii dëkk Mourtani tarixa bi su si jotee Sénégal fii ñu bëree bëri ci loxo moom la jaaree ndax mooy sëriñu Sidi Maodo Fall sëñ Madou Fall xam nga ni tasaare tarixa tijaan fii ci biir Sénégal ci ñoom Cheikh Omar Fouti ba si silsila bi nga xam ne moo njëkk laal ñoom El Hadj Abdoulaye Niass ak ñoom Seydi Hadji Malick wax dëgg yàlla ñii ñëpp silsila boobu ci Cheikh Mouhamadul Hafiz Shingiti la moom ci moom dem na ba wëy sax jàppoon ni moom mooy borom faydu aaxiru zaman ne xab an na ni xat zahar amruhu min al ura xaristahar n'est-ce pas wa faayiqu rijal fi ilmil qiran wa saahibu fayti aaxiri zaman n'est-ce pas xam nga ni kuy wax lii moom ne maa raw góor yàlla yëpp ci xam-xamu alquran waaye maay borom faydu bu mujjum jamono woote woon na ko woote woon ne mooy wooyal faydu boobu waaye nag nit yi doon duggee ci naax-naax lu Cheikh Diagne waxoon naan euh, gars yi dañuy dugg fi tarixatina afwaajan afwaajan moom après xool na gis na ni parce que nag euh, wa min ayatihi euh, wa min ayatihi ixtilaafu alsinatikum wa alwaanikum li alquran la waaye su mbóotu la ci tarix Tijaan n'est-ce pas donc ala kulli xaal dama bëgg rek wax ne woote dara après dellu ci ginnaaw ne man damaa juumoon day am ndax seytaane dafay dafay dikkal doomu aadama seytaane dafay dikkal doomu aadama te jamono bi woote def ci yomb ci góor yàlla ku si di nga woote ndax euh, seytaane dafa am ñu mu ciblé ñu nekk ay nit yu baax ñu sell ñu am mbooloo wala mu nekk ñi nga xam ne dañuy yëngal ay tur yoo xam ne turu lëndëm la turu turu seyatin la wala mbooloo la ñaar yëpp seytaane dikkal leen di leen jax-jaxal leen wax du n'importe quoi leen yomb falaa dugal el cheikh el cheikh bu nekk feesal ko moom fenkat la waaw pour dire que rek nañ def attention ci woote geek euh, ci mbir yi n'est-ce pas léegi nag pour revenir euh, pour revenir à ce qu'on disait euh, dafa am benn baat benn jàng benn livre bi nga xam ne qaamuus ñu wax qaamuus al mustalahaat al suufi n'est-ce pas bi nga xam ne Ayman Hamdi moo ko bind n'est-ce pas Ayman Hamdi taaliba cheikh la woon taaliba cheikh mag la woon donc pour dire que rek euh, baat yi maanaam lan mooy instant lan mooy dajal lan mooy jasaasa lan mooy yaajuuj maajuuj lan mooy li yëpp ay baat la yoo xam ne si ay maratib la ñuy jàng ci aaxiru zaman maanaam yi dafa am dégg-dégg bi mu am au delà de zahir dafa am dégg-dégg nest pas donc man nag leen rek moo tax may am lu ma metti di maa ngi gis léegi benn waaye ndeysaan aussi aussi fait partie des idiots de ce pays là euh, idiots yi dañoo bëri ndeysaan c'est dama jàpp ne wote dara nit ki ne man d'accordu mako waru tax ngeen noonu warul tax ngeen sagante motax ma gën def vidéo parce que ma gis ni euh, ci biir pays bi xam naa ne waa faydu bi ci waa la ñu jokkoo Kaolack na am ñu bëri ñoo xam ne ñu xasante wala ñuy sagante parce que gis naa ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi saagante ñu ngi siy profité régler ay compte te daf ko fi jaru Cheikh Ibrahima Niass moom ba mu ñëwee ni moom mooy borom faydu jeune n' est ce pas am na ñoo xam ne ko ne gëmuñu la te seen droit la ne ko gëmuñu la ñu nga wax ni gëmuñu ko jàpp ñu yaay borom faydu n' est ce pas euh, am ñi nga xam ne ko gëm Seydi Ahmad Tijaani bu ñëwee wootee dafa yor tarixa si yonent bi sallallahu alayhi am na nga xam ne ko ne gëmuñu la waaye dans respect bàyyi na ñu bëri ñu nekkoon fii Sénégal ak moom am ko moom ay alaaka ñu ñuy rafetal seen diggante ñu nekk ay am di jàmm waaye d'accord ñu bàyyi mi mooy xalifu Cheikh Tidiane te bàyyi daf ko woote sax n'est-ce pas euh, wax dëgg yàlla dafa woote mooy xalifu Cheikh Tidiane taxul nit yi war koo nangul loolu waaye pourtant saagantewuñu xasantewuñu donc soxlu xasante ak saagante waaye mbiri Mahdi wala mbiru Insa ibnu Mariam n'est-ce pas ala kulli xaal Euh, mbir la bi xam ne dafa intéressé uma bi yëpp la intéressé laa ndax si siiñ ñi xam ne sa Sall moo ko wax képp ko fi woote na pare ñu laaj ko ne ko la mooy si dalil muy benn na pare tamit am ñu ne ko man gëwma la am ñi xam ne dañ koy dama la a ñaar ñaari moom laa bëgg taalibe Mamour Insa yi lii moom conseil am leen jox la yéen n'est-ce xam leen d' abord un dina am ñi xam lu sax ay jurit dañ taxaw ne leen eh, li ngeen wax nii andi seen dalil et eh, man si internet bi vraiment loolu moom teg leen ko suuf du dalil ay ki yaayam mariamal tuddoog ay macha allah xool kanam bi xol beuti yoy ay waxi dof la vraiment yow war ngeen wess lolu nest ce pas donc euh war ngeen paré tamit ñeen taxaw ne ñeen gëm ñu leen tout simplement ndax ma xama instant nag instant mom xawma ban la ci motax tax war ngeen ko leral nest ce pas war ngeen leral ban ban ci instant la ndax instant en tant que instant bi wara ñëwaat bi ñu xam la instant boobu mom yéen sa dana il brisera la croix moom mooy damm la croix nest ce pas du yam ci la croix moom mooy ray les cochons ba pare da tuubalaat ñëpp ñi nga xam ne ñooy chrétien leen andi dugg leen ci diineen ci almasi la salam bu dee saa ci église ci temple yi pas donc bu dee nag du insa boobu bu dee insa la en tant que mbóot maanaam dono siru insa ah siru lu jafe la ñu ko am sax wax dëgg yàlla euh, ñu si ëpp si ñoom euh, dund gu métti la ñu am ci ay nattu ci ay méttit ci ay torof torof ah, du ñu am dëkkuwaay du ñu am dalwaay waaw ah, ndax dañuy am masihiyatu masih baat bi sooy xoolee ku mel ni imam bi Euh, wax na si moom ànd na si ay racines yu bëri bëri bëri donc masiix dafay tekki sax ki nga xam ne euh, day day dafa am facilité de déplacement il se déplace beaucoup sur la terre masiix lay tekki day tekki tamit celui qui est loin dans la dans la Bible ce que ça signifie extra extra donc y a beaucoup de sens lié à masiix waaye kooku kon du toog benn place donc euh, ki nga xam ne mooy ki dondu maqaama insa am na wàllu yàlla yu bëri yoo xam ne dañoo toog ci maqaama maa ngi dégg benn waaye waaw 124 000 prophètes yi insa mooy deuxième kooku amul xam

Ah, xatmiyatu dafa am ay martaba wax dëgg yàlla waaye ku yor xatmiyatu boobu moom te xamal n'est-ce pas xatmiyatu boobu kooku mi ndolal ak mi may ak mi charia ak mi bànneex yu nekk ci yoon yoon yu sew yu sew yi nga xam ne la yor ko ko ko ci Muhammad donc quelqu'un est un nest il est plus fort en grâce plus fort en en flux il est il est plus doté en arcane en lumière en don kooku du moromu quelqu'un qui s'abreuve d'une source prophétique autre que yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam